salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey ji 12 euh, juillet 2024 ci wàllub tàggat yaram ah, nu wax ci kookee di UEFA yëpp bi nga xam ne yàpp na ko baax sa vraiment bu dëgg dee dëgg moom lii waru ko xaw ma nag moom moo publier lii ou pas mais en tout cas publication bi mu ngi circuler war monde entier non mais c'est vraiment triste oh là là non balaa boobu mun wax gars yi képp ko xam ne abonné ko suñu chaîne YouTube bi abonné ngay liker di commenter di partager la ñu indil xibaar mercato wax ci joueurs yi nga xam ne dem nañ ñi nga xam ne ba ñu waaj dem ak ñi nga xam ne mu ngi noonee daal dañuy waxtaan bu baax a baax a baax Dani Carvajal génne na ay du jëmale ko ci kookee ñu naan ko Lamine Yamal démb waxoon na ci Rodri mais balaa boobee daneen leeral que ni si officiel kookee ñu naan ko Rafa Mir fait son retour foofee ca Valence en prêt avec option d'achat moom lañ ko aale mu ngi noonee dañ ko aal waaye mën na koo jënd à tout moment Lionel Messi wax na ci Colombie la Colombie n'a pas perdu depuis longtemps Colombie ay moment ngi ñàkkut match nee na c'est équipe qui a de très bon joueurs et qui a aussi de l'enthousiasme et du dynamisme dans les la ligne d'attaque nee na équipe bu am ay joueurs yu baax a baax équipe yu am ay joueurs yoo xam ne nii vraiment ils sont très très dangereux euh, ci euh, dernière mètre yi ci euh, camp adverse yi mu doon ay attaquants yu mën la ñuy def yoo xam ne dañuy finir seen action la finale les finales sont toujours des matchs différents finale yi nag dafa doon ay matchs yu wuute à chaque fois nee na mais nous allons bien nous sommes calmes comme nous l'avons été tout au long du tournoi nee na nag ñu ngi sant yàlla ñoom ñu ngi ci baax mu ngi baax waaye nee danoo ñu ngi ci jàmm ak salaam calme waaye comme ni ñu ko nekkee ci euh, tournoi bi yëpp yëpp yëpp yëpp kookee euh, ñu naan ko Lionel Messi loolu la génn wax Lionel Messi ba tey mooy wax les nuits euh, précédant la finale guddi yi nga xam ne nii mën naa ni ñoo avant finale yi mu ngi noone nee na nelaw na bu baax a baax a baax a baax a baax mu ngi noone nee na nous avons eu quelques problèmes c'est-à-dire dormir taar dañoo am ay problèmes yu yam mu ngi noonu mooy lan guddee tëdd. guddee nelaw nee na nag parce que nu reston éveillés tard toute la yi dañuy toog di veiller di ñàkk nelaw guddi gi yëpp mu ngi noone lu waral loolu dañuy waxtaan di naan mu ngi noone des maté mu ngi noone waaye yamaatuñ foofu jouer aux cartes dañuy euh, fo ci euh, carte bi di euh, jouer ay dam ak ñoom seen nee na donc door moo généralement tard luy waral loolu mooy waral ñuy nelaw di guddee nelaw waaye te nee na dañuy nelaw bu baax a baax buñ guddee tëdd peut-être yeex a yeewu loolu la Lionel Messi génn di leeral Eric Antoine Griezmann nee na c' est vrai qu'il n'a pas été bon sur ce cet euro mooy tournoi bi mais on n'en voit pas un joueur qui a à ce stade à ce niveau à la retraite pour avoir raté une compétition nee na nag kenn du dàq joueur yi ni mel di leen yóbbu retraite nag lan defuñu euro bu baax euro boobee rek des na yeneen euro yi ñëw nee parce que dans ce cas là y en un paquet à envoyer à la retraite bu dee lool rek ñu bëri nañ leen yóbbu retraite kon bu dee Kylian Mbappé ci 25 ans kon mun nañ ko yóbbu retraite bu dee dañoo yóbbu Antoine Griezmann retraite ngir loolee nga xam ne raté na tournoi boobee Phil Foden wax na ci positionnement am foofee ca Angleterre contre kookee ñu naan ko Hollande nee na mooy meilleur positionnement am ci tournoi bi mu léegi nee na c'était mon meilleur jeu sous le moyen de l'Angleterre ce poste m'a aidé à ce poste m'aide à prendre le ballon et entrer euh, dans les zones dangereuses nee na poste boobee nga xam ne moo lañ ko teg contre Hollande daf koy euh, permettre muy mën a jël bal bi di dugg ci zone bi nga xam ne nii lu baax ci équipe adverse mo équipe bi ñu jàkkaarool je me ressemble davantage comme je le fais pour Manchester City nee na euh, dafay gis boppam bu baax a baax ci jeu bi comme na mu koy gisee foofee ca Manchester City mu ngi noonee waaye nee na en le mettant sur le bord de la surface et en retirant les tirs loolu la kookee ñu naan ko mën naa ni euh, Phil Foden génn di leeral Carvajal wax na ci Lamine Yamal nee na Lamine a un exemple à Barcelone qui est Messi et doit apprendre de lui lamin Yamal nee na ah, kooku di Carvajal am na ku mu war a xool ku mu war a jàng muy ci Lionel Messi ah, foofee ca FC Barcelone la mu fa jot a jaar nee na muy xool ci kookee nee na Lamine ah, point d'interrogation mu ngi noonee quand j'avais 16 ans euh, j'ai gagné un trophée de championnat champion et je pense que j'étais le roi du monde et il fait euh, la différence à l'euro kookee di euh, mën naa ni Carvajal nee na ba muy am saison ans euh, dafa jël trophée de champion jàppoon na ne mën naa ni moom moo téye monde bi alors que demeewut noonu waaye Lamine Yamal euh, mu ngi def lu wuuteeg loolee foofee ca Europe bi di def ful ak fa demee teewut wàccee na boppam bu baax a baax mu ngi noonu officiel Benfica a signé Jean-Nicolas Best pour un montant de 10 millions de en provenance de euh, Heidenheim mu ngi noonu 8 buts 11 passes décisives en Bundesliga en 2023-2024 l'un des Euh, première de euh, coupe euh, de pied arrêté en kooke ñu naan ko

24 ans mu ngi noonu et euh, tu prêt euh, pour le ballon d'or 2024 fini ba xam pare nga pour jël ballon d'or bi ah ñu ngi xaar mu ngi noonu Mathis De euh, moom souhaite rejoindre Manchester United immédiatement léegi léegi la bëgg a dem rejoindre Manchester United buggul am ay sikki sàkk xaar ma yàlla ak ñoom seen nee na na dem na dem nañ ko bàyyi mu dem waaye joyeux anniversaire à Nico Williams gone gi nga xam ne actuellement moo fëq bëtu monde entier 22 yi nga xam kooke di Nico Williams bu Espagne ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee gars yi waaye di leen leeral que ni kooke di Stade Rennes rejeté na première offre bu Bayern Munich def ci Désiré Doué mu ngi noonu le club bavarois compte revenir à la charge Xavi Simon et leur plan B bu kooku réussir ñu dem ci kooke di Xavi Simon waaye kooke di UEFA classement bi nga xam ne moom la teg ah man damaa jàpp ne ne classement bi yab Barça la dix-huitième position ay West Ham yëpp ah, maa ngi ciy ñëw Manchester City première position Real Madrid deuxième position Bayern Munich troisième position Liverpool quatrième position Rome cinquième position Paris sixième position Villarreal septième position Dortmund huitième position Chelsea neuvième position Inter dixième position Leverkusen euh, onzième position Porto douzième position Leipzig treizième position Man U quatrième position Benfica quinzième position ba léegi Barça ñëwagul West Ham seizième position Atlético Madrid dix-septième position Barcelone dix-huitième position loolu bu doon classement euh, championnat mën naa ni Barça zone relégable lay ne dafay wàcc deuxième division loolu mën na ne. Arsenal 19e position, Atlanta 20e position. Qui n'a pas Barça. L'UEFA a publié son nouveau classement officiel des clubs. Oh là là. Manchester City est classé numéro 1, meilleur club <laughs> yow Yofa nag yàpp nga Barça nag de ma la di xaar ci commentaire yi yéen nan ngeen gisee mbir moomee yéen amateur de foot ba xam ànd ngeen ci imaginer West Ham bi nga xam ne daaw ñaat position la jël championnat Angleterre Barça mi nga xam ne daaw moo jël deuxième position ah timit te dem na Ligue des champions West Ham dem woon Ligue des champions ah ay Villarreal ah waaw baax na xaw ma fan la ko teg de ci yan condition ma nag affaire yi ëlëm na ma vraiment lii yab yabeel la quoi yab Barça la <laughs> bu dee FIFA moo ko publier réellement nag publication mu ngi wër monde entier ñëpp a ngi ciy wax mu ngi noonu gars yi ma ngi xaar ci commentaire na ngeen gisee képp koo xam ne abonné goo suñu chaîne YouTube.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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur euh, ne. du bu clean bu bees tàq lañ lay jox venant la neexee si yow lay def batterie beeg lépp 100 pour cent yaa koy defar réglage yi mise à jour et tout. Ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp balaa muy génn ci bi am bi ñu bindal ko nag loo ngeen fii moom lépp yaa ngi na quoi ñu dem ci deuxième question bi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 am na ñu ma ko doon posé même question bi sauf que c'est intéressant nga posé ma ko yow parce que tout le temps yaa ngi ciy yëngu affaire yi dafa nekk à partir de treize dañ ko liggéey liggéey bu exceptionnel boo xam ne